ma yenn saa yi may def ay affaire di def ay affaire di def affaire bañ gis ni kii lii muy def da koo mën ba yenn saa yi daf cee réew xam nga nit boo mënee li ngay def yenn saa yi nga cee réew bu la neexee mais après dama dem ba ci biir gis ni affaire yi nekk tur réewande quoi dama dof <laughs> xam ma yaru cool tranquille xam nga bon gaa yi gis ni man daal dama bon man ma jekki ni gis ni lii daal nekkatul bon léegi dama ko xamul tax ñëpp laay rey na ma yàlla baal ba pare gën leen oyof comme Cheikh Fall dégguma dégguma dégguma wësee King Baba dégguma dégguma dégguma King Baba hey ay hey. King Baba yeah des demonto kabese ci sir gang gang ah. sir jaaykatu livre bu mënul liir kooku de posam rek lay gis yàgg nañu tàq suñu biir kon pour nga diis ñu de lay diis bi may feesal arena yaa ngi feesal seen foosu kër taxawee tànk Assane Diouf nara xorom fépp foosu kër laxas na seen gembi ba mu seet tax ngay kii am photo kon bonoon koor di nga laaj autographe wala photo yaa moto bu cher te awul heure nandi te rek nga tardel de bandi de bandi amoo fakk amoo gën bu dee armel mari saay saay on the mic kaay kaay sama zone A sa bakkan sa laaj laay biir teg dalu hôtel tëdd seen jeer maye liquide ci seen jeer gën a bandi gën seen xeer kon xam nga wala nga ma jaay beer li nekkatu réewande dama dof li nekkatu réewande dama dof li nekkatu daw léegi dama kon ay yoo man dama kon ñëpp laa rey dama yàlla baal ay dégg ma dégg ma dégg ma gën leen a oyo comme Cherafal ay ca ay ca King Baba ay yoo King Baba ay yoo

King Baba ayo Baba ok <laughs> King Baba ayo Baba li nekkatul rewane dama dof ah li nekkatul bon ni naa léegi dama ko ñëpp laay rey ma yàlla baal mais euh, vraiment gën leen eh pare gu ma de. ah gu ma de. pare gu ma de. taal bu yàq sa. fecc bi damay am benn fecc bu bees bu ma gis gel yi di ko fecc mais fecc bi man dama neex. kan moo ko doon fecc léegi. Sophia Sophia. bës bës ok kaay mayaat ma ko. <laughs> ni na. na Sophia ñëw jox ma ko parce que fecc yi foofu moo mën engagé. Euh. King Baba. King Baba. King Baba. King Baba. King Baba. Li nekk lu réew King Baba. ayo King Baba one two three King Baba yeah nekkatul réew ne dama daf nekkatul boole dama koome eh. eh. euh, Ngaaka Blindé King Baba. Mm. mais why King Baba? Est-ce you are the king or you are the dad?